بسم الله الرحمن الرحيم مبكي وأعد لهم ما استطعتم من قوة من لين دي نوي واد لين سياري مباخ مبكي كانغم دي مبكي فتاوى دي وحني باتي بودي مي تي باج 86 تي تيريب تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي للدكتور محمد أحمد لو بلا نفسي وحتي باج بني نكا waxaat li nga xam ne mooy suñu principe jamono bu nekk te mooy waxuñ ngir jëmmam jëmmam itteeluñu xam naa du ñàkk ni xëy na moom la jëmmi ahlu tasawuf itteel moom la magi tasawuf itteel ci seeni jëmmu waaye ñun jëmmam itteeluñu li ñu itteel mooy téere bi mu indi teg ko te téere booba muy risaala ilmiya muy muy thèse scientifique boo xam te ni dafa dem ci maktabaat ilmiya yi nga xam te ni yu mag la ci àddina bi ngir nag la nekk ay njuumte ci téere booba ñu man caa wax la ci suñu xalaat wax ga yit dañ koy te ci li imaam Ahmad waxoon ni musuma werante nit ci diine lu dul damay bëgg mu ma musuma werante ci diine lu dul damay bëgg mu yay ma ba ma dellu ginnaaw moom ci boppam loolu la yéene ki muy weranteel mu yey ko kon li ma wax foofu mooy borom téere bi nga xam te ne nii am na ñu koy limaali ci borom xam-xam yi te duñ wax ni amul xam-xam ndax am na lum jàng waaye téere bi njuumte yi ci nekk comme niñ ko waxee woon rek mu dellu ca ginnaaw. mbir la moo xam te nii du ko tuutil du ko tuutil moom du ko tuutil da koy réyal ndax waxoon nañ ko ci mm, kii bu njëkk ba li dellu ginnaaw ci ay boroom xam-xam yépp te sëriñam bi gën a siiw ci sëriñ si ci jamono yi si muasirun yi ci muhaddisun yi ci ñoom ñu itibaar mooy Muhammad Nasiruddin Albani di benn européen bu yàlla mayoon ak ñaw ka ak muus albani moomu ci boppam sax da ngay gis xadis boo xam te nii da koy da koy wéral tey bu subaa mu ràggal ko mbaam mu ràggal ko tey bu subaa mu wéral ko dellu ci ginnaaw yenn yi da koy def ci xam maanaam wax ni maa ko waxoon waaye damaa juum yenn yi léeg-léeg mu def ko ci ñàkk xam léeg-léeg mu ñëw ràggal ab xadis ñu ne ko ah xadis bi wéral ko di mu ni kon baax na dinaa ci delluwaat xool ko ba xam loolu nag boo seetloo day mel ni alwahabiya bokk na ci seeni métode foowe texte yi foowe nas yi foowe texte yi sharia yi xawma foowe laa koy tudde xawma ñàkk xam laa koy tudde mbir nag boo jàppee ni yaa ko moom xëy na nu la neex nga koy nga koy interpréter nu la neex tamit nga koy jëfandikoo waaye texte yi moom kenn da koo moomut moom bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladina utul ilma la yàlla wax yàlla nee na teg si lu leer la ci dënni boroom xam-xam yi kon dama leen ko dénk waaye nekkul loo xam ne ñoo ko moom ba leen ci neex rek lañ cay def ku neex tey ñu dugal la ci lislaam ku leen neexul ñu génn la ci lislaam dégg ngeen Cheikh Aïd al Qarni maa ngi defar benn reportage boo xam pareegut dégg ngeen lim ci wax euh, bi Mouhamed Ibn Salman ñëwee wax américain yi promesse leen ni leen mbirum tar giñ taroon te ku ne xam nañ tar gi tar gi wahabisme ñoo ko indi woon ci ci Saoudia muy tar googu yëpp ay pexe la woon pour jële fi Union soviétique loolu la Mohamed bin Salman wax pour jële fi Union soviétique rek moo taxoon Aïd al Qarni wax ni moom mi ngi tuubal mi ngi tuubal ay kilifaam te ka ca jiitu mooy Mohamed bin Salman mi ngi tuubal tamit borom euh, askanu euh, population saoudien bi ci xalaat yi xalaat yu yu yu radical yim indi woon yim indi woon ci bopp lenn shabab yi lenn ci jeune saoudien yi mi ngi koy tuubal yàlla di ko tuubal askanu saudi saudi saudi yëpp ndax loolu ak njuumte la woon tuub googu nag dama jàpp ni xëy na euh, dafa commencé Makka waaye dafa war a war a àddina bi yëpp ndax bari na kuñ génne ci diine te loolu moo ko waral bari na kuñ tuur deretam te loolu moo ko waral bari na kuñ nangu alalam te loolu moo ko waral damay wax ni alwahabiya bi nga xamante ni Muhammad ibn Abdul Wahab moo ko dugal ci Najd li ñu rey ci ay nit yoo xam dañ doon wax ni ñun ay julit lañ dañ doon wax ni ñun ay julit lañ moo xam dañ leen di fekk ci fu ñuy jullee ajuma ñu rey leen moo xam dañ leen di fekk biir Riyad wala Diraya rey leen wala fekk biir Madina faagaagal leen tudde ko fatxu nag tudde ko fatx fatx nag dama yaakaar ne bi alayhi salaam muy def fatxu Makka fekk foon ay jullit ay yéefar la fa fekkoon ay yéefar la fekkoon Makka def fatxu Makka bu fekkoon ay jullit rek fa nekkoon yonente bi alayhi salaam di ko tudde fatxu Makka waaye moom fat yi muy tuddee fat moom ay julit lay fekk ci biirub dëkk yoo xam dëppoowuñu ak moom ay xalaat bokkuñu ay moom ak moom ay gis-gis ci diine mu rey leen dàq leen jël seen alal dan ni ñii seen alal aaruwut ci diine seen deret aaruwut ci diine loolu nag alhamdulilah bi nga xamante ni ñun suñu réew mag ñu baax ñi liggéey nañ fi loo xamante ni nii am na ñu fi bàyyi ñoo xam ñooy défendre loola ba tey ba tax na rey googa seen sëriñ sa doon def ay mille neuf cent euh, euh, mille neuf cent dix set nangam jàpp ba mille neuf cent vingt-sept xam te ni mooy jamono yi sëriñ Touba di nekk ak mag ñi yenn ci mag ñi euh, rey googu ñu doon def ñoom moom lañ jàngal seeni donga fii ci suñu réew seeni donga nag dañoo amul moyen ñu reyee moo tax ñuy saaga xam nga ki bëgg def dara te mënu ko faaw mu génne ko ci làmmiñam faaw mu génne ko ci làmmiñam ray googa nag ñu bëggoon te mënuñ ko moo tax ñuy saaga seen saaga yu bon yi kii saaga da leer ni moom kamiy saaga bu fekkee maal na ko lu ëpp saaga da koy def ndax saaga mooy li gën a rëy ci làmmiñ saaga mooy li gën a rëy ci làmmiñ yàlla sax maanaam euh, dafa bañ ko ko saaga yàlla sax lim gën a bañ mooy ko saaga mu bind asamaan bind léppam nga ñëw ni ko bindoo ko moomoo ko keneen a ko moom wala yaa keneen a ko bokk loolu mooy saaga yàlla muy shirk bokkaale yàlla da koo da koo bañ trop trop trop bu fekkoon day ragal ñu ni loolu la ragal du koy ragal moo tax boo ko xasee def loo def ci jaamu yàlla dootu ko nangooti la in ashrakta la yaxbatanna amaluka kon nag xam ngeen ni li waral mbir mi lii rek la ginnaaw bi Muhammad bin Salman jëlee ay matuwaayam nag ci la boroom xam-xam boobu di Aydil Qarni jóg wax waxam ju wax wax ni mi ngi tuub moom ku am grandeur la damaa xamul da koy def ngir ragal mu bin Salman wala da koy def ngir yàlla yàlla gën a xam la ci biir xolam ñun xamuñ ko waaye ala kulli xaal lim def ñun rafetlu nañ ko en tant que ñoo ne dañ koy diglu di diglu leen ci ay gis-gisam. kon ci page quatre-vingt-six euh, mu wax ni dafa mel ni Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane yi ay bëgg-bëggam yépp ay bëgg-bëggam yépp moo nekkoon li Tirmizi nett li Tirmizi mi nga xam te ni moo moo fent xalaat boobu weesu moo fent xalaat boobu woos weesu ci wàllu alxutbul maktuum ak albarsaxul maxtuum wala yu mel noonu mu ni nag ngir loolu nag mu tànnal boppam ay jikko yoo xam te ne ay melo yoo xam moo ko tànnal boppam dem na bay wax naan ruuxi wa ruuxuhu sallallahu alayhi wa sallam hakada daal sama ruux ak ruuxu yonente bi alayhi salaam mi ngi mel ni baaraamu sànnikaay ak baaraamu diggu doomu mu ni ruux ak yonente bi alayhi salaam mooy dimbali yonente yi man nag sama ruux mooy dimbali aqtaab yi ak aarifuun yi aarifiin ak awliyaa yi li ma itteel ci wax ji mooy ruux yi wa ruuxuhu hakada sama ruux ak ruux yonente bi alayhi salaam ñu mel nii yonente bi alayhi salaam moom lañ war a roy mooy ki nga xam te nii dañ ni ko indil ngir ñu roy ko roy googu tax na sax maanaam léppam la ñuy jàng ngir mën koo roy kon kay ki ngay roy boo sañoon toujours da ngay mel ni moom ki ngay roy boo sañoon jamono bu nekk da ngay melni mom so munta melni mom moom raw sak maas kon ruh ruh ruham ak ruh yoni bi ñoo mi ngi mel ni ta baaraamu sànnikaay ak euh dig dig dig lolu moy rek maam li dundal ak ruham yoni bi isa moy dundal sama ruh li dundal ak ruham moy dundal sama ruh mo nako deg non rek te moy lan moy jaamu yàlla jaamu yàlla moy dundal ruhul anbiya moy dundal tamit ruhul awliya kon wax jooju mages sa koy déggi noonu rek kon kon li ma waxoon rek wax boo bëgg a dégg déggin wu ñaaw rek da nga ko def waaye wax boo bëgg a dégg déggin rafet tamit danga nga ko def li am solo mooy alxatmiya wala yu mel noonu ma koy bàyyee ñoom suñu Modou Kama xëy na ñoom gën a gën a eh, mën a mën a wax eh, wala yu mel noonu waaye dama jàpp ni sax man ginnaaw yow gëmoo sax ay al qutbiya gëmoo tamit maratibul awliya yi ibnu arabi indi yëpp dama yaakaar ni kon nga cay nga cay nga cay nga cay nga cay werante ci biir loo xam ne ahlu tasawuf ñoo werante loolu yàq ay wax la ndax yow bokkoo ci biir xilaaf bi yow ndax yow gëmoo ko aslan loo gëmul nag di ca di ca jël position loolu bokk na ci ñàkk a gëm sa yow ñàkk a gëm sa bopp lim wax tamit ni bokk na ci eh, ahlu tasawuf ñoo xamante nii mu ni dañuy fekk ci waa tasawuf seeni xalaat dëgg-dëgg mooy dañoo jàpp ni aqtaab yi ñoo gën ci kaw suuf ñoo gën yonente yi ñoo gën mbooleem nit ñu baax ñi indi na ci ay wax sax yu bari yoo xam ci ahlu tasawuf ñoo ko wax ala kulli xaal kon dafa mel ni kon mutasawifoon yooyu muy wax damay jàpp ni Cheikh Ahmadul Xadim moom bokk ci kon dama xamu ñan la nag ndax Serigne Touba moom mi nga xam te nii la bokk na ci la gën a rëy ci ay waxam ngir tuutil boppam ci kanam yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy suma ma sayoon sama lex yi nekk tegukaayu tànk bi yonente bi alayhi salaam kokon kon yaakaar kon du tafdil boo xam mukk ci yonente bi alayhi salaam la gëna siiw ci aw turam tamit mooy abdullah wa khadim rasulihi jaamu yàlla ak liggéeykatu yonente bi alayhi salatu wasalaam slave of Allah and servitor of the prophet sonson su ko defee kon ma doon indi li mu wax li mu wax ci ay texte ci yonente bi alayhi salaam du jeex bal sax mën naa ni rek comme ni ma ko waxee woon ak dundam da koo xaajoon ñaari xaaj six mois yi julli ci yonent bi alayhi salaam six mois yi tagg ko kooku kon di wax naan waa tasawuf waa tasawuf dañoo gëm ni ñoom ñoo am na ci ñoom ñu gën yonent yi alayhi salaam kooku wax bu yàqu la bu amee nag bu fekkee am na ñu ko wax chaz lay doon te chaz laa xukuma lahu maanaam lu néew la te lu néew kenn du ci àtte moom li mu gis ci senegal gi nga xam te ni fa la jànge yaroo fa muy tuuba googu nga xam te ni fa la jànge ba tax mu génn dem Madina Munawara bu fekkoon bu fekkoon dëgg-dëgg loolu moo xew ci tasawuf kon moom du génn ndax ba muy ba muy jàngee Touba ak di amee xam ba tax mu way ay way way yoo xam moo yéem waa Madina ba tax ñu jël ko ngir mu jàng bu fekkoon waa Touba wala loolu lañ gëm kon yaakaar naa kon moom du génn di jàngi ñun ñi tamit bu boobaa duñ génn di jàngi ndax fa lañ jàngee نيكي نونو نيكي نونو أه، أمنا فمي وحني المطلب الثاني موي الاعتقاد بأن لأولياء الفكر بأن لأولياء الفكر الصوفي القدرة على شفاء الأمراض موني بوكو نجي أهل تصوف لنجم موي جم جم ني ولي ولي am nañ kàttanu faj ku feebar waaw mbokk yi lii nii lii kay du gëm-gëmu tasawuf gëm-gëmu lislaam la lii du gëm-gëmu tasawuf waaye gëm-gëmu lislaam la boo médecin mënee taxaw bind ordonnance faj ku feebar yaakaar naa nga jël alquraanu karim gi yàlla wax ni ak faj la ngir feebar yu bon yi ci dënd yi nga jël ko jëfandikoo ko ngir faj nit su boobaa kay faj nga ko feebar bi iznillah ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala man de fima yaro ci saw xeyna samay at bari wut lol waye gisuma ci kuy wax ni day fajj te yàlla andu ci gisuma ci kuy wax ni day fajj te yàlla andu ci bu dee xasida gi gëna siiw serigne touba talif ko mu jëm ci walu fajj ak faju muy matlabu shifaa yi lam ci njëkk jital moy jël lépp jël kattan gépp delluwaat ko yàlla xamdan li munzili dona wa daa'i wa munzili shifaa'i wa dawaa'i maa ngi sant yàlla mi nga xam te ni moom ci boppam mooy faj te moo wàcce ci kaw suuf ak faj ak jéem a faju daa ni waat man amara al ibada bi duaai li yadfaau bihi an il balaa'i yàlla moomu moo digal jaam yi ñu ñaan ngir ñu fegu ci balaa yi wàcc ci kaw suuf ba yàlla ne wa qaala wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum booba la waxoon ni kon lépp lu ngeen soxla ñaan leen ma ko may leen ko moo xam joñ lor la moo xam ñoddi njariñ la luñ ci maa doon rek su ngeen ma ko man yàlla ma may leen ko kon tuumaal ñii ni ñoom kat jàpp nañ ni mën nañoo faj ay feebar loolu du tuuma waaye lu wér la dañuy faj ay feebar médecin bi dafa faj feebar waaye suñ borom a ko may kattanu mu am xam-xamu mën a xam feebar ba diagnostic ko ba mën koo faj nit ku simple ki nga xam du wàllu yu képp rek am na ñu ci yàlla may ñoo xam te ni mën nañoo tiim ku feebar faj ko rawat na wàllu bi yàlla boo xam jigéen na suñu borom subhanahu wa taala suñu borom may ko may ko lu bare bare bare bare bari ci ak kattan ak ndimbal te loolu bu ko jëfandikoo mën a faj xanaa kon sayidna isa radiallahu anhu wala boog alayhi salaatu wasalaam faj goom doon faj kon xanaa kon lu ko waral xanaa dooma wax ni yàlla dafa war a wàccal boppam di faj jaam ñi kenn ku nekk mu jël la toog ak yow xool jagnu si feebar bi dal faj la yàlla moom kun fayakun rek lay wax kun rek fayakun mu nekk waaye kun fayakun googu rek am na ci ñu koy jaarale ngir ñu mën a faj ay feebar kon tuuma jooju moom wax ju yàqu wala bëgg feesal ab ab téere rek tax nga indi ko ci mu ni bokk na ci pas-pasu jullit yi ñu xam ni feebar ak faju ay mbindeefi yàlla lañ te ku yàlla ku yàlla mënu ci dara mënut a faj ku feebar te yàlla àndu ci mënut feebaral ku wér te yàlla àndu ci te xeewal yàlla yi la bokk lolou kay mom yak ahlu tasawuf yene ci bokul ngeen jigam waxoon naa sànq bayri Sëriñ Tuubaa yi mu wax ci wàllu faju waxon na ko sank léegi Sëriñ touba leral nañu loolu lépp yonente bi alayhi salaam faj nañu feebar batay summa ala man haythu massa da marad yabra bila butin wa faaza bil garad nee na maa ngi julli ci ki nga xam te ni fu mu musa ko ku feebar mu wér ma nett la ci lool benn xissa bu wér muy xadisu jaabir jaabir nee na damaa yoroon ak gileem tardé lool ci àll bi yonente bi ñëw dab ma ni ma jaabir ma ni ko labbayka yaa rasulallah ma lu la tardeel ma ngi ko sama gi gileem moo ràgg ba munta daw mu ma yéegal ma yéeg mu ma aal ma yar bi nga yor ma aal ko mu raay ko gileem gi daal gën a gaaw gileem yëpp kon kooku lu feebar lum laal mu wér kon kon yonent bi alayhi salaam kon yàlla may na ko mu mën a faj feebar loolu daqante wut ak ni yàlla mooy aji faj ci cosaan waaye nag am na fu mu koy jaarale am na ku muy may kattanul mu mën a faj am na ku muy may kattanul mu mën a faj mu may ko Isa may ko yonent bi Isa may ko lenn ci awliyaaw yi wala mu may ko awliyaaw yi tamit mi ngi indi ay aaya di tegtale naan yàlla rek mën a faj wa in yamsaska llaahu bi durrin loolu moom Shawkaani ñëpp ci yam ku ko mën a wax it mooy li ahlu tasawuf wax rek yàlla moom kum teg feebar moom rek ko mën a faj waaye am na ñu koy jaarale ci ñoom wa idaa maridtu yàlla moo faj waaw mooy faj kay waaye nag dina am fu mu ko jaarale dina am fu ko jaarale moom borom bi subhaanahu wa taala ngir ma mën muni ni neena lépp luñ jox sulayman ci nguram ga jox ko daoud terale ko Isa ibn Isa ibn Maryam neena yàlla jox nako awliya awliyaaw nek ci xetu Muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla taskhiral na jinne ak nit ak shaytané ak ngelaw ak malaika ak mbooleem kawnu bi yépp ci faj ay feebar wala yu mel noonu loolu kay moom yaakaar naa ku amutum xel sax war ngaa xam ni al wuquu dalilul jawaaz lu lu xew bañ gis ko day waaye lu mën a nekk la xanaa kay dañ koy interpréter mooy bokk moo bokk ñun dañ koy interpréter xéewalu suñu borom gi mu xéewale ab jaamam yéen ngeen interpréter ko ak njabar xanaa te kenn ku nekk am na droit ci interpréter nga mu neex loo xamul moom soo neexee nga interpréter nam la neexee waaye dëgg moom genn rek lay doon muy dëgg suñu borom bi subhaanahu wa ni yàlla terale xeetu muhammad alayhi salaatu wassalaam ba bu ñëwaatoon ci biir xeetu muhammad sax du leen mën a jiite isa ibnu marima bu ñëwee ci ginnaaw mahdi lay julli isa nu marima bu ñëwee ci ginnaaw xeetu muhammad alayhi lay julli bu ñëwaatoon du fi fekk yonente bi de alayhi salaam waaye ci ginnaaw xeetam ci ginnaaw xeetam lay julli loolu koy leer na problème amatul kon loolu doone sëkk dama loolu doone sëkk su ko defee hmm, waxaat na mu tënk li wees woon lépp mu ni mu ni liñ ciy dégg ci li jiitu daal mooy ahlu tasawuf daal dañoo ëppal trop trop trop ci teral ak ci màggal seen kilifa yi ba dem na sax ba àgg ci ni duñ def ay bakkaar duñ def ay bakkaar ñoom seen seen awliya yooyu xam nga mbokk yi ki dëkkee tuub ki dëkke tuub kay du def bakkar yonente bañu fi jàngal yonente bi moo ñu ni attaibu min az-zanbi kaman la zanba lahu kiy tuub ci bakkar dafa mel ni ko amul bakkar loolu yonente bi alayhi salaam jàngal kiy tuub ci bakkar dafa mel ni ko amul bakkar awliyaaw yooyu nga xam te ni seen àddina lépp mooy jaamu yàlla ak dellu ci suñu borom ak wa tawbat wal inaaba tuubal suñu borom subhanahu wa taala kon kay buñ ëppalé ci ñoom ba wax ni duñ def bakkar loola moy rek buñ defoon bakkar sax dañ koy daal tuub fa sax yow ya waxalon sa bop ni ñen ci ñoom dañoo gàddaay jigen ñi ñen ci ñoom am-am ngir beru dem suñu borom subhanahu wa taala xana beru googu doo tudde bakkar fi sax dem nga ba comparer diggante tasawuf ak rawaafid yi rawaafid yi nga xam te ñu ëpp ci ñoom dañuy takfir leen ci sahaba yi nee nga ma tasawuf ben lañ ci seen pas-pas bi mu ni lay lay nak ñu ni lay lay nga dégg ahlu sawuf ñu ni señ bi du moy yalla wala wàlliyu bi du moy yalla lolu firi limi firi lay lay gën nga dégg ñu ni yàlla da ko aar ci bakkaar te fekk lañ ci jublu lépp ay tappale la waaye lañ ci jublu mooy maam rek moom daal ku ñu aar la ci bakkaar rek ku du def bakkaar la waaw am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam te nii seen mbaax àgg na ci seeni bakkaar suñ borom mbay yàlla leen لن نرى هي عند بعيسى وحني ما ضربنا عفان ما فعل ما اليوم عثمان ابن عفان لم دف جناو تاي دو كولور دونت بكار دو كولور نح يالا مي ماي لولو عثمان اسك منوكو ماي لين تي اي جام ولا مايو يالا تي عثمان نك لا مانا يام رضي الله عنه يالا مي ماي لولو عثمان خيرو محمد وي خامتني يونس بن عيسى جوينا بس داني سامي سوبي موي ني ماي گمتا گيسوني est ce que yàlla mënta xéewale yonente bi alayhi salaam may ko ci biiri jaamam ñoo xam te ne luñ def ci bàkkaar balaa suba bala ngoon suñu borom effacé waat ko wala mu sàmm leen sax ci defuk bàkkaar ndegam nit ñu simple ñu la yonte bi alayhi salaam di wax ci ni ajjuma ba ajjuma aj ba aj umra ba umra kor ba kor. suñu borom da ciy effacé bàkkaar yépp ci effacer bakkaar yu ndaw yi buñ moytoo bakkaar yu mag yi te bakkaar yu mag yi moom ku ne xam na ni manees na ko moytu yu ndaw yi kay la ñuy wax naan kenn du ci maasum waaye yu mag yi moom manees na ko buñ ci buñ ko mënul woon a moytu yonente bi islam di wax ni ba batil kabair li fekk ñu moytu bakkaar yu mag yi kon bakkaar yu ma yi mën nañ koo moytu bakkaar yu ndaw yi kay xanaa la ñuy wax te yonente bi islam nee na am na nu jaam bi def noo xam te nii am na sax xadis bu gën a leer nee na ndax gis ngeen ni kenn ci yéen bu fekkoon ak dex dafa nekk ci buntu këram bis bu seen mu sangu ci juróomi yoon ndax aw yaram dana des dara salte ñu ne ko dee mu ne julli juróomi noonu la mel julli juróomi noonu la mel ni let see mi am xaadim bu mu simple tey bu xëyoon def bàkkaar tey ci tisbaar bu julee takkusaan suñu borom jégal ko bàkkaar ba naka moom wàllu bi nga xam te ne bu julli woon tisbaar xalaatu nelaw xalaatu xoolaat luy xaraam xalaatu ko defaat jaxasoo sax koo xam te ni mën na koo xiirtal ci lu xaraam day toogaat di tudd yàlla di jaamu yàlla ba dëkk san jot loola mooy kon kilifa dëgg wàllu yu dëgg suñ borom da koy aar ci bàkkaar loola nekkul loo xam te ni lu naqaree dégg la kon leer na kon wax jooju wax yi tuuma la rek yoo xam te xëy na am intention bindi téere wala am intention neexal benn fi ci mujtama bi moo ko waraloon bokk na ci waxaat na ni bokk na ci ahlu tasawuf ñoo xamanteni ni nii ñoo xamante ne nii araamaluñ seeg rak araamaluñ sëyeg mag araamaluñ sëyeg sax waajur wal xiyaasu billahi taala loolu de moom dañ la ciy defi nga indil ñu ko dañ lay defi nga indil ñu ki nga xam ne xam nga ko mu sëyeeg sëram wala mu sëyeeg magam wala mu sëyeeg rakkam kon kay kon kay sa mbokk yi doon saaga lenn ci doomi kilifa yu baax yi di tuumaal seeni waajur ak njaaloo sa dongo yi doon def loola ci lii lañ ko déggee kon ahlu tasawuf dañuy njaaloo ahlu tasawuf dañuy def nangam ak nangam kon kay ci texte bii lañ ko déggee kon kon ku wax ni saaga amut ci téere bi moom wax la boo xam te ni teguut fenn ci xam-xam page bi moom page bi moom dañ cee saaga mbooleem ku gëm tasawuf page bi dañ cee saaga mbooleem ku gëm tasawuf ndax loola mooy ñun ñëpp kon suñuy maam ak suñuy sëriñ dañ ko woon def waxuma da nga ni loolu ab fi àla moyena ci biir tasawuf yow tasawuf rek nga wax lenn ji mu tasawuf rek nga wax te loolu moom man gisuma ko kon amul lu gën a rëy aw saaga nga nuróole ahlu tasawuf ak ay chrétien amul lu gën a rëy aw saaga nga nuróole ahlu tasawuf ak ay yahud te def nga ñaar yëpp ndax nee nga pas-pasu trinité muy gëm ni yàlla ñett la boobu chrétien yi gëm ci ahlu tasawuf lañ ko jëlee loolu wax nga ko leer nañ ci téere bi ni ki noonu it wax nga ni nikaaxul maxaarim say kula aram ngir ahlu tasawuf di def loolu moom yahud yi dañ a ñu koy def kon yahud lañ xamoon ñu koy def ñaar yooyu nag maa yaakaar ne aw saaga gënu koo rëy kon xale yi di saaga kon bu mu jaaxal kenn bu mu jaaxal kenn ci mag ñi lañ ko dégg lu naar bu mag bu ndaw bi wax ca gàdd ga ko dégg lu naar bu ndaw bi wax ca gàdd ga la ko dégg su ko defee kon li ñuy dégg foofu mooy layente bi alayhi salaam waxoon ni ku jàkkaarloo sa mbokkum jullit ni ko ab yéefar nga Hmm. rëy na de rëy na lool nee na kenn ci yéen ñaar moom la kenn ci yéen ñaar moom la mooy moom mi nga ko wax bu fekkee doonu ko yow kon yaa doon moom mi nga ko wax nag moom gis nañ ko muy julli def yëpp donte yow gis nañ la ngay julli def yëpp waaye yow yaa ko attaqué waaye léegi bu fekkee ahlu tasawuf ay yéefar waaye léegi bu fekkee ahlu tasawuf ay yéefar lañ bu fekkee ahlu tasawuf ay yéefar lañ ay musrikuun lañ xanaa kon yéen ñi nekk ay wahabi te dëkkoon Tuuba mbaa ngeen dëkkoon Tiwaawoon mbaa ngeen dëkkoon Medina Baay wala fu ngeen dëkkoon ci këri diine yi xanaa kon waxuma yéen seeni waajur de ndax du ma saaga saa ngeen suñuy maam nag ñun waaye yéen yéen seen soxna yi leen mayoon jamono yi ngeen nekk ay musrikoon dëkkoon biir Touba di siyaare ji rawda ba di jullee ca jumaa ja am pas-pasu tasawuf xanaa kon yéen ba ngeen duggee ci diine ba ngeen demee Saoudia wala Mauritanie wala Fayeen ba dugg ci diine l'islam say yooyee koy kon dañ ko waroon a dindi defaat ko ndax sëy yi yonent bi doon defaraatut mooy sëy yi nga xam te ni ahlu kitaab ñoo ko façon waaye mushrikuun yi moom mu yéefar yu bon yi bokkaalekat yàlla yi sëy yiñ façon moom du baax sëy yiñ façon du baax am na ci yéen ñu ma xam ñoo xam te ni ba tey seeni soxna ci ahlu tasawuf lañ bokk te ginnaaw nee ngeen ahlu tasawuf ay doon lañ am na nuróo nañu nasaraan yi nuróo nañu yahudi kon kay ginnaaw ay mushrikuun lañ di ay mulxiduun kon da ngeen war a wàcc soxna yooyu kon soxna yooyu kon da ngeen war a wàcc ngal la ñun ñi nga xam te ne ci shirk lañ judd ci lañ ñu yar ci lañ ñu nàmpatal billah kaburat kalimatan taxruju min afwaahihim in yaquluna illa kadiba léegi nit day wax benn baat du ko bàyyi xel te baat ba la mën indi bari lool ay julit di say mbokk ci deret di ñu baax nga tiim leen ni ñoom ñooy dimbali chrétiens yi ci trinité tin yàlla ñett la ñooy def jëf yahudi yi ci denc ay ñu leen araam ñuy di sey ñu leen muy njaaloo rek kon ñoom it ñooy def ak lii ak lii ay mulxidoon lañ al ilhaad mooy weddi yàlla loolu yaa ko wax mu leer téere bi ay mushrikoon lañ ay xulaat lañ ñu ëppal ci ñuy bokkaale yàlla lañ ñooñu kay waroo am ñoom benn relation waroo am ak relation waroo faa am kër waroo faa dëkk ndaxte la ko dëkk tubaab yi mooy ni dëkk tubaab yi ahlu kitaab ñu ci ëpp moom lañ te ñoom dugguñ ci diina génnaat ci waaye bu dee Tuubaa dañoo dugg ci diina génnaat ci ay murtaduun lañ ay murtadun lañ ñoo génn ci lislaam seen deret dafa war a dagan seen alal dagan dañ leen war a rey koo xam ne dañ ko war a rey nag dama yaakaar moom wala wax ak moom wala séq ak moom lenn kon dama yaakaar ni day nekk loo xam te ni xëy na tanaaxut moo cay am bu boobaa waaye wurtaam mbokk yi xaataat leen bu baax a baax ci ni ngeen di adressé seen mbokki jullit yi xaataat leen bu baax a baax ci awsaaf yi ngeen di jox seen mbokki jullit خل ينتبع إسلام وخون أسامة بن سيد ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة بنيو يوم القيامة عندك لا إله إلا جمد وحني عبد الله نان نعم غير لا إله إلا الله يلا صحني أنا خوم نمير لا إله إلا الله نحن أنا أبجام دنا نيو def lu nek ci moy yalla ci adina ak si la ilaha illa kep tax ma genné ko sama rat ko aljana yow nga tak sa sa gemmañ fassiyene di xaste di saagawaate ñii ay yéefar lañ ñii ay chrétien lañ ñii ay juif lañ ñii ay mulxidun lañ ñii ay mushrikuun lañ ba pare ni kenn du ko wax ba pare ni kenn du ko wax mbokk yi ab julit deretam dañ koo aar ab deram dañ koo aar alalam dañ koo aar bakkanam dañ koo aar tedd ngaam dañ koo aar lislaam moo aar yooyu yëpp l'islam moo aar yëpp ab yéefar sax boo ko tiimal ba ko rey mu tudd yàlla waratoo ko rey da nga ko war a bàyyi may istidraak eh, ci eh, bu njëkk ba damaa waxoon ni abraha fekk najaashi laa bëgg a wax waaye kuy kuy kuy jàngkat boo dégg yow li nga xam ne kii najaashi lay wax sab xulisaan la sabxuli saan la waaye Najaashi laa ci bëggoon a wax Najaashi moom la yonent bi alayhi salaam jullee te musta jaamu yàlla moo tax borom xam-xam yëpp dëppoo ni ab jullit la moo tax imaam Malik dafa gis ni ba ko yonent bi jullee dañoo indil yaram wi yonent bi alayhi salaam ca Madinatul Munawwara ca Madinatul Munawwara ni ki noonu it dabbaax mi ma wax ci kalaamul awliyaa yi lastu afhamu li annani ana ana wa hum humo Abdul Wadud laa bëggoon a wax ni Sëñ Tuubaa moo nett lay waxam ba indi loolu ala kulli xaal daal li ma bëgg a wax mooy saaga gënta rëy nuróole ay julit ak ay chrétien saaga gënta rëy nuróole ay julit ak ay juif saaga gënta rëy ni suñ maam yi am na ci ñoo xamante ni dañ doon sëy ak ñu leen araam dañ doon njaaloo ak seeni rak ak seeni mag dañ doon njaaloo ak seeni ndey bàyyi da doon njaaloo ak doomam amul lu gën a rëy loolu ci aw saaga kon saaga wi gone yi wax di saaga suñ muntaxaa di saga suñ baba Sy di saga Cheikhul Khadim di saga Alaaji Malik di saga Cheikh ibrahim Niass dañ ko jàngal rek dañ leen ko jàngal dañ leen ko jàngal rek nit ki nag lim jàng rek moom lay tari te it dama koy waxaat kiy saaga saaga la am waaye bu amoon yar dana bu amoon fetal dana dana fetal boo amoon bomb dana bombardé moo tax nag nañ bàyyi xel bu baax a baax baax ci zawaaya yi ak ci këri diine yi nañ ko gën a feesal ak sécurité bu baax a baax a baax ndax nit ki am na xalaat yoo xam bu nekkee ci moom ba ba rusuta jakaarloo mbokkum julitam naa ko ab yéefar nga wallahi boobee nga naay mën na koo rey moo tax kon nañ nañ nañ nañ fexe ba sécurité am bu baax a baax ci këri diine yi ndax bu ci sécurité amut dëgg-dëgg man nañoo dem ba ñii di wax lii ñuy reyaate ak di bombardé comme ni ko ñëpp di defee rek boo seetloo Omar Sall ni muy waxee buy wax maam autorisme bi muy àndal autorité bi muy àndal tar gi muy àndal ni muy joxoñe loxo yi nga xam ne kii maam ki muy waxal bu jàkkaarloo moom mën na ko rey ak kayen ak kayen ak kayen ak nga xam ni kon ñii seen yéene dañ caa àggagul moo tax ñu saaga waate waaye bu seen yéene matee dëgg moom lu weesu saaga la ñuy def te it kuy saaga kuy saaga kuy saaga suñ Tuubaa di saaga Alaaji Maalik di saaga suñ Babacar Si di saaga Baye Ñas di saaga kilifa yi diine yi waaye boo dajee kum Xaadim Buso bu la tooñee da koy rey ku mën a saaga ñee mën a rey kee ku mën a saaga ñee mën a rey kee mbokk yi nañ delloo si waat xel yi bu baax te xam ne xam-xam xam-xam suñ Tuubaa nee na mooy lu indi ragal yàlla waaye xam-xam du mukk luy tax a soxor xam-xam du mukk luy tax a rey wax naa fi sànq imaam Ahmad la ma waxoon imaam Shafii nee damaa mës werante benn waay ci benn masala bi ñu werantee ba dajawaat ma gis ko mu dummóoyu ma daw lëngu ko ni ko xam-xam jeex na suñ jëmm yee fi des dañ bëggante soppante wallahi li ñuy wax nii lépp man taxul ma bañ leen nga xam na